situation bu méttee métti la ñuy dund fi mu nekk nii ndax tey jii nii nga dëkk si dëkk ne nekk citoyen comme ñëpp ñëw fi jóge dëkk ba pour liggéey teral say waajur jàppale sa famille ñëw fii nii liggéey loo xam ne tey jii mën nga ci investir nga dem julli ji ñëw ñu jël lépp génn ñi fi desoon yóbbu Pikine ne dañ leen téye foofu pour xawma ma lan suñ téyee nit kay nañ koy wax ne say bagage soo ñëwee di nga ko fi fekk mais ñëw da ngay ñëw pour jël say bagage ñu ne la doo dugg say bagage xaalis ak lépp li nga yaakaar ci sa dund ñu jël lépp xaw kenn xamul essence bagage yi nuñ ko def kenn xamul xaalis bi nuñ ko def doo ko gis ndax fu machine yi jaar doo dem foofu di jee xaalis lii dafa metti dafa metti trop trop ñu ngi ci nekk si phase commencé naan ay campagne ak li nii dem si ay élection président war na bañ lii ndax ñi mu def lii kenn du ko sanil foofu benn carnet da koy votel ndax su leen yaakaaroon day ñëw waxtaan ak ñoom ku fi am bagage na ko jël man tey jii nii man étudiant la dem naa ba am samay licence liggéey amuma kon léegi lan fii nii dama doon liggéey mécanique dama doon liggéey feeraay lépp ngir gëm sama bopp su ma neexoon ma dem sàcc wala ma defee leneen mais dama gëm ne liggéey moo fi nekk képp koo gis fii liggéey la gëm soo diggoon duggoon fii boutique yi mënoo leen compter kër yaa ngi fi gars di liggéey ay place ferraille ay place mécanique ay tailleur ñëpp a ngi fi liggéey boo yaakaar moo ngi si biir avec ça ñu ñëw doo génne dara saak yére sax doo ko génne nga jóge si événement tabaski nga xam ne li nga amoon yëpp financé nga ko ngir sa njaboot am luñ jullee nga ñëw ñu delloo la zéro nit ñaa ngi fi soo wëree fii yëpp nit ñaa ngi fi amuñu fu ñu jëm am na ñoo xam ne paas bu leen yóbbu seen dëkk amuñu ko xayma li nga yàqule toll na ci ñaata. non pour pour l'instant moom mënu ma la wax exactement li laa yàqule mais bëri na daal bëri na parce que bari woon naa fa xaalis yóbbu nañ ko. léegi a ngi fii ci cité ba léegi lan ngeen di xaar. non ñu ngi xaar parce que tey jii nee nañ xam dañuy waxtaan fee pour borom kër yeeg borom place yi fi nekk dañoo war a toog ak maire yi wax ak ñoom mais sous-préfet dégg naa ñëw na fi démb mais dégguma ko fenn foo xamante ne wax na waa population bi. te ay nit a fi dëkk ay citoyen fi dëkk ku ci nekk yaa ngi ak sa pièce bu élection amoon tey ji ñëpp ay dem voté ji comprendre mais kon nag ñun dañu war a boole ci biir dëkk bi mais ñun ñu ngi ñu jàpp fii yóbbu ñëpp ba pare dañuy laaj xaalis. xaalis bi noonu laaj pour la. am na ñoo xam ne cin 5000 lañ fay parce que man nekkuma fi woon sax bokkuma ci ñi jàppoon ñii 5000 ñii 10000 fii am na am na ku fi taxaw fii léegi ne ñun 2000 lañ fay fii nii alkaati yi pour dugg ci biir te dëkkuñu fi. joge ci àll ba ñëw joxe 2000 francs pour dugg ci biir koñ bi jël yëfu jàmbur kese moo leen tax a jóg. bi ñu jàppoon ana mu. sama soxna mu ngi fële taxaw. bàyyi waaw bàyyi nañ ko waa bàyyi nañ ko. moom euh, nan la def ba ñu bàyyi ko. moom dafa fay 5000 francs la fay. bi mu fayee 5000 nañ ko kayit. non dañ lay naan demal bu fi taxaw sax lañ lay tegal donc 5000 amul traçabilité. déggoo ma de ñoom daal na nit ne yow sa mille yi nga fay nii lii a tax nga fay ko. ñoo ngi lay fay. naka nga tudd. Siga laa tudd sant Maron. d'accord ci cité bi nga dëkkoon. ci cité laa dëkkoon waa. est-ce que mën nga dellu bi ngeen jànkonteel diggante démb ak léegi. waa bi dañoo tëdd ba 4 di du ñu fogg ñu génn leen ñu génn. ñu ne la jël sa pièce nga génn fii dara doo ko fi génnee bàyyi fi bagage boo bëggee tëj ñu ne la bul tëj man dama yor malaat boo xam ne daa waroon opérer sa teewoo biñ ma fekkee ci néeg bi. ne ma jógal ma yëkkati malade bi dañoo fekk malaat ci ci biir bëgg kaa door ay liif lool nañ ko ay liif sax ma ne police bi bu ko door kii dafa damu ci loos daa war a opéré mu ne ma a génn yaa ngi dégg bi ñuy génne ma bugg a jël papier xale bi yi mu war a opéré ak garab yi muy naan ñu ne ma génnal sipp bu ndaw laa génne ak sama mbubu fanaanookaay ngal bu sew sama vacanciers yi ma yoroon yëpp de la réalité. daw bàyyi fa dara yëpp. boo xam ne dama ko waroon yëpp sete woon ndax dañ ma ne woon laajuñ la analyse yi bul indi analyse yi indil xaalisu bi may lijjante ba sama 800000 mot ma war laa xele bi opéré yëpp mu ngi ci samay saak samay valise samay armoire samay lal génnewu ma dara samay safa naturel jupe bu ndaw laa génnee ñu boole ci xew yëpp ñu stade ba sànni na ne da ngeen di dellu si waa seen nekk ñu sànni ñu stade ñu ñëwaat ci stade bi gis fekk ñu daanal lépp boo bëggee dugg ñu ne la doo dugg boole ci di ñu sànni ay ay ay ay ñuy fat di bugg a dee fii dañuy xëy liggéey biñ ñëwee ci cité bi fekk nañ fi jumaa fekk nañ fi daara ay taalibe yu jàng alxuraan yaa ngi dégg borom bitik yi ñu jël seen gaz yi juróom-ñeenti kab yoo gaz lañ jëlee fii daju cosmétique u jaambur yi sàcc xaalisu jàmbur yi rey ginaaru jàmbur ci cité yi xar yi ñun dañoo sonn wowuñu Macky sal ndax moo leen yebal amuñu benn délai nañu may leen ñu délai pour ñu mën a génn fii bu ñu ne woon génn leen balaa ñoo taxaw fii dañu génn suñu bagage yëpp ay at at ñuy liggéey di dajale man mosuma bugg a feeñ télé waaye tey damay feeñ tele dañu man ne ma wool Pape Niang ma ñëw dimbale la pour sa rak opéré man sama papa dafa gaañ sama yaay dafa feebar tension yaa ngi ma ko ma nekk ci situation di fo di fobere di toogal ay nit ñuy lekk ñu may fay seen xaalis yaa ngi dégg sam patron yi dañoo jooy dañoo jooy ndax ñoo ma doon jàppale pour ma pour ma opéré xale bi ñoo ngi dégg li may wax nañ ma seetaan ñoom nduuti ñoom daam xeer ñoom laay liggéeyal yaa ngi dégg lii mitti na dañoo tabaski ji ba ma leen wooy dañoo jooy ci pakk feeraay lañ fanaan maak sama rak ji amuñu fu ñu fanaan yaruñu darab lii bi ma sangoo lañ ma ko sarax yoruñu dara lu ñu sol lekkuñu naanuñu yoru bi ñuy génne génnewaaluñu wu téeméer ñoo ngi woo képp ku baax képp kilifa diina bu baax bu nekk ci senegal mu dimbale ñu ndax dañoo dekkoon fii ngir daan suñu doole waaw. amuñu nag mënuñoo luyee appartement moo ndaxoon ñu luyee fii di fay ay trente mille ay trente cinq mille waaye jëluñu benn alalu jàmbur dañoo mbindaanu ñàkk jëriñu waaw man nag maa ngi jooy lu miti sama nag bi ma waroon a sowee dafa damu ci loos. sama xaalis bu ñu téye ko ci biir cité bi jël lépp de sama yére huit cent mille ak soixante dix mille yi ma sama patron yi joxoon leer na leen li may wax nii bu amul nañ dugte leen ne amut jox ma soixante dix mille pour ma jënd seen rafetaillement kër ga lépp dem. waaw ci cité bi laa dëkkoon. ñaata temps nga fi dëkk. am naa fi sept ans. lan nga ñu wax ci situation bi nga xam ne yéen a koy dund diggante démb ak tey. démb ak day wax dëgg am naa li ma métti ndax man butik laa fi yoroon ma demoon euh, tabaski ji Fisel daan bi ñu ma woowee bi ma ñëwee fekkuma fi dara lépp lañu jël gars dañoo daji su ah, kii ni poli gendarmerie dañoo daj suñu palaas yi jël suñu xaalis yi ñu dencee woon foofu ay millions la ñu yóbbu man li ma ñàkk foofu mot mot na 3 man boutique laa fi yoroon. da nga bàyyoon xaalis bi ci biir. waaw damaa bàyyoon foofu xaalis boo ko xam nga rek ñun moom xaalis boobu la ñuy liggéeyee bu ñu ñëwee nag boy bu ndaw laa fi bàyyoon. ñu jël xaalis ñu ñu daq booy yi yóbbu leen booy yóbbu leen fay ne arène nationale dugg ci biir di daji yor seen martu di jël xaalis waaw am na son nañ trop fu ñu nekk ni yoruñ dërëm ay ndaw lañu fii lañu yaakaaroon fii jàmm moo fi nekkoon waaw. autorité yi moom wax dëgg neex yàlla métti na daal lii moom métti na man xam nga dem ba léegi man lekkuma naanuma ndax yoru lu ñu lekk yorun lu ñu naan dañoo sonn te duñu nelawuñu waaw fii moom metti na trop waa boo xoolee fii ay liggéey ay liggéeykat kese ñoo fi nekk am na ñu génne fii seen 5 millions police yi nangu ko ci seen loxo fii am na fi démb ah ñoo xam am na fii nii démb dañ ko borom place moo dugg place am di xaalisam ñu nanguwaat ko ci moom léegi xaalis bi ah xaalis bi police yi jël nañ ko ay million la ñuy jëlee ci biir police yi suñu bitik la ñu daje jël xaalis yëpp yóbbu leen ko ak suñu gaz yi gaz yi ñu doon jaay waaw lépp lañu jël yóbbu. est-ce ci xaalis beeg ah, fu ñuy jotee xaalis yi police yi dañu jël xaalis bi seddoo ko seen biir ñun dañu mën a jot xaalis bi waaw ok. non en ci jot am man si habitant la bokk fii si biir bi. ay gaa yi cinq heures du matin lañ fi dugg fekk gars yi ñuy nelaw fëgg néeg par néeg yow say marto yi ngan di te bu la génnee dañ leen ne jëlee sa portable ak sa carte te boo ko jëlee bu dee daa am leneen loo fàtte duñ la bàyyi nga jël ko te fii ñaata nit ñoo fi denc seen xaalis plus de douze millions sept millions yi réer barki alxuraan karim yàgg nga naa fi dëkk torop ñaata def. naa fi plus de dix ans. lan nga doon liggéey. man en fait maçon laa. élève laa woon mais damaa bàyyi jàng bi mhm. élève laa. ban jàngat nga am ci li jot a am. Euh, li am si biir cité bi fii en fait gars yi lu ñu def rafetul dañoo ñëw génnee gars yi yóbbu leen arena commencé toj fii te de un ñu ñëkkoon ñëw gendarme dañoo ñëw génnee gaa yi yóbbu leen arena mais en fait dafa am benn service xam ban service la xam cadre de vie. ñooñu ñoo ñëw yoo seen marto seen raskut dugg si néeg yi daaj yi jël suñu écran plat man mi di wax ak yow sax sama néeg am na écran plat bu toll nii wër na yaa écran plat gars yóbbu nañ ko parce que Cheikh Ibra Fall écran nañ ko bu toll nii damaa ñëw fekk fekk fekkuma fa dara sama bagage bi ma ba léegi la sot ak taw bi lii yëpp la ma instant dafa wow sax sama yëre lépp lañ jaxase lépp am na ñoo xamante ne wax yu noppi suñu xaalis lañuy denc gars yëpp yóbbu nañ xam nga loolu dafa nga te fii nii gars yi dina ay fii dafa bëri ay defkat yu bon fii nii man yàgg naa fi torop fii nii am na liggéeykat te ñun bu ñu xëyee dañuy liggéey dañuy wàcc comprendre nga mais c'est que lammi ñu gars ñëwee ne ay cité imbécile cité imbécile am na lii am na lii en fait dëgg la cité imbécile bëri na ay malfaiteurs mais gars yi ñoo koy salte dañuy génn def seen ñoo seen lu bon après ñu daw ñoo laakatu fii te bu ñu defee loolu ñoom bu ñu duggee fii dañuy neex a jàpp ndax fii dafa bëri ay indi xam nañu baax luy daw fii mais xam nga lu lépp la ñuy wax poissonnerie. donc léegi ngeen nar am. en fait instant yii sama parents ñu ngi fi instant yii HLM euh, si mairie bi la ñuy fanaan xam nga lu rafetul. am na sama benn grand sœur tamit dafa ëmb xam nga loolu rafetul. a ñeneen ak ñeneen instant yii amuñ fu ñu jëm ku nekk day ut néeg wala moto yi taxi yi di jaar amuñu fu ñu fanaan si mbedd dem si garage bi lañ fanaan foofu noonu si xeer yi te tamit xam naa même chose bu tawee tamit lu ñuy def te gendarme boo bàyyi sa bagage sax boo ko bëggee jël dañu ne non non génn. moo tax nangu ñu jël seen bagage. moom moo jaaxal moo ma jaaxal. ñëw daaji borom boutique yi ay millions lañ fa bàyyi daaji daaji foofu jël seen marchandise yóbbu ko plus de trois trois camions gaz xam nga loolu xaalis la. ana gaz yi. gaz yóbbu nañ ko. fan lañ moom ma jaaxal xaw ma fu ko yóbbu oto yi yëpp gars yóbbu nañ leen oto yi moto yi borom moto yi sax mënuñ jot seen moto yi xam nga loolu ñàkk nañ ko. depuis man ñëw na Sénégal ba léegi li ma am demb mosoo gis ma am ci àdduna ay cinq la yi ñëw ci ci waxul nga jël xaalis yi waxul nga jël dara kadante rek lay wax nga jëw man li ma julli sax gars yi nangul lool li ma sol léegi-léegi mu ngi nii depuis démb ba léegi loolu laa sol sama xaalis ak sama mbokk yi yëpp mu ngi ci biir police yi nangul sax nga dugg nga jël li nga jël nangul lool xaalis yi yére yi li ma añ yëpp mu ngi ci yëpp lépp yokkul moon loolu la wax ci Macky Sall ngir yàlla ak yonent bi soo bëggul malien mu génn mu wax ci asin côté mu ñëw jël yëpp mu dem moo kat ne xoolal li ma sol rek war na yaram loolu ah ma lenn ci man doomu yëpp mu ngi ci climatisé mu ngi toog ñun ñu ngi ci taxaw ci naaji bi ah yàlla yàlla moo atte loolu la la wax merci beaucoup alors dëkkin bi ngeen fi dëkk da ngeen amoon këyit wala lan ngeen fi dëkkee ci ban anam. non heureusement nag bu ñu waxee dëgg te yàlla tax rek amuñu woon papier boo xamante ne may nañu ñu dëkk fii mais dañ dëkk ci terrain jàmbur lañ dëkk nag parce que fi ñu dëkk titre foncier la am na borom waaw. mais jox nañ leen sommation laataa ñuy ñëw joxuñu benn sommation moom ñun de moom dañoo bu ñu joxoon sommation man duma dem village parce que dama dem fanaan fajar ñu woo ma man dëkk balaa jóge maa yegg si fii ay 18 heures laa bi ma ñëwee dama bëgg a dugg pour jël samay bagage ñu bañ dama mujjee yéeg miir fee dugg bi ma ñëwee sama firgo laa njëkk a dajeel ci mbedd mi firgo bi nga xamante ne moo nekk ci biir bitig bi moom laa njëkk a dajeel ci mbedd mi ma ne nii gis buntu bi buntu bu nekk aw fu nekk comprends mu dugg si place bi mu ne ma ana li nga fi bàyyi woon waaw mun naa ne yàqule naa nag mais am na ñeneen ñu yàqule tamit parce que man tey jii bu ma nee lii laa yàqule tey am na ñu ko mën a dégg sax naan ah kii day wax rek lu ko neex waaw avec ça ñu ne ñoom dañoo dañoo gëm dëkk bi lii moo tax Sénégal jaruñoo defal dara muy politicien ak yeneen ñëpp ñoo yem jaruñu dara na xoolal ñi ñi toog amuñu fu ñu jëm am na ñoo xam ne dem ba léegi lekkuñu fu ñuy jëlee xaalis bu ñu lekke ku fu amul mbok say mbokk dem nañ julli ji man mii damaa demoon julli ji mais dañ ma ko wax ma ñëw suñ pak feeraay moo ngi fii nii sama grand bi moo ko moom lañ fa stocké ci bagage su mënuñu ko xayma ay 10 millions ay quelque war na koo mot. mënuñu mënuñu cee jot soo bëggee dem dugg pour xool bagage yi nu mu demee sax ñu ne du amoo accès ci biir bagage boobu suñ paree tey li ñu yàq ba pare ñun ñi ñëpp ñu dem di jël bagage yi kan nga mën a wax ne doo jël bagage yi mënoo si dara sécurité boobu doo ko am lii du dëgg du yoon ak fu mu mënti jóge muy si gouvernement bi ba ci suuf fu mu jógee du yoon nit ak looy mënti def da nga koy wax li li nga war a def ba pare moom lu mu def lu muy def su deful nag soo fekkee foofu loo def moo moo tooñ boppam. d'accord euh, xam ne may ñu kenn accès pour ñu wax kenn suñ rombee fii dañuy jàll dugg si biir seeni oto génnaat demaat seen yoon ba nii gisuma ko toog di wax ak sous wala maire ak leneen gisuma ko fen waaw. avec ça nag nga bëgg a wax na yow da nga bëgg jóg pour defar réew da nga jóg pour sécurité réew mi avec ni ñuy tuddee fii nii cité imbécile ay imbécile suñ fi nekkoon gis nga ñu taal fi wala ñu xeex fi wala mais xeexu ñu defu ñu dara ñoo ngi ni toog ñu jiñ leen lu ci mel ni agression fi nekk ñoo xam ne ñu def def katu ndax kàddu yooyu ànd nga ci loolu ànduma si man masuma mësuma gis fii nii ay agression wala ay vol yoo xam ne dañ ko fiy def man li ma gis fii ay góor yàlla yu takkul liggéey mair yu fi nekk takkul liggéey yor ay élèves yor ay étudiants di leen jàppale ñuy jàng normal ñii di xëy di gont comme ñëpp. waaw avec ça nga yaakaar ne ñun mën nañoo dem bu président génne fi ndax comme li ma la wax rek man mii di wax ak yow étudiant la samay moroomi étudiant ñoo ngi fi ay élèves ñoo ngi fi ñooñu kan kan kan ñoo xam li ñuy doon ëllëg loolu nag seen seen droit la woon ñu protéger leen ba suñu defee demee ba soxla fii ñu def ko ci anam bu rafet mais lii dafa ñaaw dafa salte lii ko ko gis am xol bu baax du la neex jaajëf. waa bi may génn génnaaloo ma dara benn 2000 francs la sama rak bi génn ci sama saak amee bi ma yàkkati saak amee ñu ne tëggal xale bi boo xale bi buy jóg da nga koy taral buy tëdd da koy jàpp buy jóg dang koy jàpp. ñëpp nañ ma seede ñu ko gis système yëpp ñu ngi nii après lañ ko solal ci loos bi pour loos bi mën a taxaw xale bi xale bi dugal naa ko horaire mu ñibbi muy dem sortu lañ ko yóbboo ndax aba fu mu fanaan dañ koo gàttandu ci horaire jox ko tubé bi mu sol bi ma demee horaire fayu ma dama leen ne mënumaa fay defar ex dëkk ba sama yaay gàttandu ko fayal ko paas fayal xale bi ko doon yëkkati paas ñoom ñaar génnewuñ dara ordonnance yi nag waxaaloo ma ko garab yi mu doon naan mu ngi fa bañ yóbboo stade mu ne an na ma wax leen ko mu ne indi ko ci médecin bi médecin bi amul benn garab boo xam ne xale war na kaa mën a naan ndax loosam bi sedd yaa ngi dégg nañ ma ne dama ma ne demal nga jël garab yi ma ñëw fii ñu tere ma police bi may ma 1500 ne ma demal wiire ji ma wiire ji jël taxi wiire ji wan leen kale bi bu ñu yeeg po bi police bi dafa ba ma xale yi ba xale yu góor ñoo jàppante ak ak police yi li may wax nëbu ma ko mu ne ma indi sa numéro moom police yi ñoo ngi nii nëbu li may wax ma jox ko sama numéro yaakaar ne damay dimbali mu toog ba guddi mu woo ma ne ma kaay ñu fanaan. policier mu ne ngeen fanaan. police bi. ma fanaanoo ak yow mu ne ma am nga jëkkër ma ne ko waaw mu ne ma damaa bëggoon ñu fanaan ma ne ko garaa boo mu mënee jàppale teel a tàng jàppale man damaa njaboot. ki la may 1500 mu ne ngeen fanaan. déedéet ki ma may 1500 sax xam fii la monté woon keneen moo ma ko wax si biir sama numéro ma yaakaar ne damay jàppale mu jàppale wu ma loolu la ma ma ne ko fanaanoo ma ak yow danga yaakaar ni fee doomu xaraam ñoo fi dëkk Cité imbécile la waaye amul ay imbécile waaw. ngeen fanaan yéen ñaar. moo ko xam yaakaar na ne man dinaa jaay sama ngor ndax ñàkk. moom la. policier la si ñii sol mbaxande yu xonk li may wax nëbbu leen ko. man mar du ma tax a naan petit woow ma policier damay woo gaa yu baax yi nekk Sénégal ñu ñëw dimbale ñu lii miti na. sama rak ji laa bëggoon soxla jël nañ xaalis bi lekk nañ ko jël nañ samay bagage jël nañ génnewu ma dara nii laa toll maa ngi nii damaa dem ci pharmacie bi léegi ñu ne ma sama tension bi daa yéeg ba 19 xale yaa ngi ne duñ ma bàyyi may fen ñoom ñëpp ñu ngi nii mu ne ma demal hôpital ma ne ko ama lu ma demee hôpital moo may garab bi ma naan ci pharmacie mu ne waruma laa may garab ma ne ko sama ordonnance garab tension dama ko jël à vie mu ne ma waruma laa jox benn garab mais comme nee nga amoo loo yóbbu hôpital am naanal pharmacie baa ngi nii di dégg li may wax ma naan ko man lii laay lii laa am lu may naqarlu sama rak ji feebar na lijjante naa war naa ko opéré jël nañ xaalis bi sama papa gaañu na sama yaay mënu dara waa may ni nag woo ma Macky woo ma kenn ndax moo leen yebal te ci dëkk Macky Sall lañ juddoo ci ay loxoom waroon naa mën na xool la ñu nekk fi ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñii ñaaxaar ñii Fatick ñii Bambey ñii Kaolack te moom ñun ñëpp moo ñu seefe ñu ñëw fi di daan suñu doole. baax na ñu ngi leen nuyu ñu ngi leen di fay soxna nga tudd man Seynabou Ndong laa tudd yow it eh, ci cité bi nga dëkk waaw ci cité bi laa dëkk que mën nga dellu si waat eh, ci li nga xam ne rek eh, ci li fi jot a xew waa mën naa cee dellu si waat fekkuma fi nag mais avant muy am am dégg naa barki dem bu ñuy toj fee lañ ma woone ma cité bi dañ koy toj ma woote bër ñi jiite kër yi laa woote ñu ne ma loolu du fi amee sama mag ji ki njëkk wax ni léegi kooku dem na ba woote ba ñu woowal ko chef de quartier bi chef de quartier bi ne leen maa ngi nii toog ci mairie bi cité bi duñ ko toj ñuy dundee yaakaar ñu dem ba ay sa 4 heures du matin man mi village village laa nekkoon mais dañ maa woo 4 heures du matin lañ ma yee ci kaw bi ma jogee di di yee sama rak bi kuy saar laa génnee ndax tiit boobu yoratuma crédit bi ma wooyee sama rak mu wooteel ma ma ma laaj de sama mag bu jigéen bi sama taawu papa xale bu ndaw la yor te dañ ko dugal ci auto police bi dem saana ji leen ci euh, stade ba mel ni ay xar xanaa ku yor nit sax ku yor xar sax xanaa balaa nga koy def dara nga sangu ko ba pare fii nii amul loi police yi nga xam ne ñoom ñoo waroon di ñu di ñu jàppale si boppam ñoom ñëw ñëw di defaroo ci cité bi ba pare respecté wul ñu ci cité bi ba pare te ñoom ñoo ngi nii fu ñu da ngay gis police boo xam ne day liggéey ba wàcc civil wu ñëw ci cité bi tux yamba ba gàtt ndeyam mu jógewaat foofu ñëwaat foofu am fa ci biir cité yaa ngi dégg te terewul ñoom dara su jotee ñu naan waa cité bay imbécile la te lu bon li ñuy wax ne moo am ci cité bi ñoom ñuy police ñoo ñëw di ko def maa ngi nii sama néeg sama place laa fa yor lu valeur yu deux cent cinquante mille laa fa dugal ak sama rakk buy lett ci biir place ba am na chauffeur yoo xam ne da leen a ñëw di leen jaay chauffeur noonu lañ ko ñàkkee yaa ngi dégg sama place la fa policier ñoo ko dajji ba ma yónnee ñu dem xoolal ma ko poli condamné bi ci suuf lañ ko fekk lan moo dajji sama nekk sama ñetti taabi yóbbi naa ko lan moo yóbbu sama xaalis kan moo fa dugg policier yi ña fa nekk sama nekk kenn fanaanu fa ñu mën a wax ne ña fay fanaan ñoo génnee buntu ñoo noo bàyyi noonu bunt ba bon bunu nekk ba dañ koo dajji kenn desu fa ñoom ñëpp lañ génnee kon xaalis su fa desee ñu jël ko policier yee ko jël di sàcc suñu alal ba pare bëgg dina du toroxal bokk may président cadre de vie environnement HLM waaw parce que waaw cité bi li fi nekk moom métti na si benn ba ko xoolee ni sa bopp comme ñu xëy génnee say bagages yi ak say biens yi fa nekk kooku moom doo ko rafetlu quoi aussi mais da nga xam ne yoon bu ñëwee yoon ñëw na parce que li c'est pas la première fois ñu leen jox avertissement mais ñun ñuy dëkk HLM dañ doon jox dañ doon dund situation yi métti fii si HLM bi. non da doon am doon am si kër yi tëb dugg si biir kër yi dugg si biir école yi dugg si biir cité bi doo xam day leen kii. Euh, déggul olof déggul séeréer déggul pël doo xam sax ban façon xeet la takk ay jaaro ay booy yoo xam xam ne ay délinquant la te benn instant am na corniche ak autoroute boo fa paane yenn heure yi ba yow nga tëj sa oto nga dem sa yoon boo fa toogee naan da ngay xaar secours fan lay fekk man tombé naa situation keroog am na benn waay am na benn waay boo xamante ne cité bi la jugee cité bi a jugee benn femme boo xam ne dañ ko agressé si côté hôpital HLM bar fixe yi plainte bi man maa ko yóbbu woon sax waa ji waa commissariat point E ñoo ko a jël yóbbu ko benn pël photo bu ñu sàkku foofu si suuf pont bi ñun j'étais j'étais témoin quoi ak gardien hôpital HLM bi euh, ay situation yu métti dund ñun HLM lañ dëkk fa lañ xam fa lañ màggee mais nag li ma doon gën a ñaawlu tamit situation bi buñ doon dundee ay zeng wala nga jël ñëw jugee benn dëkk kenn xamul fi nga jugee nga ñëw daaj dëkk tamit réew doxewul noonu tamit réew tamit dañ ko war di defar mais tamit foo nga dëkk sa environnement yaa koy préserver sàmm ko boo xamante ne ku la gis dalay naw mais ñëw situation précaire nga doon gis foofu man ma fa duggee benn jour di seet benn boto boo xam ne dañ ko sàccoon te fa boo xam te ne tey booy sëy sa jabar dit mun na ko gis nga jël benn rideau séparé ko yoo xam te ne dafa ñaaw quoi aussi waaw loolu la quoi merci bagage mënoo koo génne yére mënoo koo génne soo jógee ne da ngay dem soo saraxtoo ñu ne la lay may pour nga dugg ci biir pour génne sa yére ñu xaar ba ngeen jiit la def groupe ci biir kee toolu fee sànni lacrymogène kii toolu fii sànni lacrymogène ndax loolu rafet na démb ba léegi taw bi suñu kaw la jeex tey fanaan ci mbedd yendu ci mbedd bi démb fanaan fi tey yenduwaat ci encore nii ndax lii rafet na lekkuñu naanuñu suñu alal yi des si biir cité bi fii ndax lii rafet na ñoom ñu ngi nee toog ki leen ko sant su dee dañ leen ko sant ki leen ko sant njabootam a ngi vente yooyu ñu ngi tëdd ci matelas yi noonu vente yooyu du leen ëpp yi ñun amuñu ko ñun suñu doole lañ am sa sama place bee ñu rooj ñee tegal ma ko nee ñë baalu ma leen ko ku ci ku ci mën a jàpp na ci jàpp sama place bee bu ma ko de ci 10 000 francs ko commencé di jaay fa nga jaay ñu may ree di nii di naan ay cega clandestin la day jaay boppam di jaay fa nga jaay xeebu ma ko lu nekk dégg naa ko fii samay mbokk ay jàmbur ñëpp di ma ko waxal te tarawul damaa góorgóorlu ba ubbi sama place góor jàppalewu ma jigéen jàppalewu ma léegi nag sama palaas bi ma nar koo ñàkk ci nii sama néeg ba yére amul benn yére bu ma génne ci biir amul benn yére lii lii lii lii laa fa génne lii te village laa jóge te lii su ma demul woon village du ma ko génne ndax loolu rafet na li métti na torop ci ñu ay njaboot lañ dañoo yor ay doom yor ay waajur yoo xam ne dañ leen a bàyyi village su ñun lañ yaakaar ñu ngi ni tey jii ñett ñaari fanu yàlla fu mu nekk ni amuñu fu ñu fanaan fu ñuy jëlee affaire xaalisuñ ñu jëlee location ak fu ñuy jëlee nekk ak neef néeg ñu mu jafewee ñu jëlee ndax lii méttiwul métti na torop nañ ñu jàppale ngir yàlla waa cité bii dañoo yaakaar ne duñu ay nit ay nit njaay fii nii am na ñu yegg ci fii ci kaw ay étage tey jii lu ñu mën a génne waa cité bi fii nii ñu yegg ci kaw étage bi mënuñu koo génne man dëkk ci cité bii te sama papa lu mu soxla ma dem defal ko sama njaboot lu mu soxla ma dem defal ko moo ma gënal dëkk ci étage te mënu maa faj sama soxla dëkk ci étage te mënu maa faj sama soxla dëkk ci cité moo ma ko gënal nañ waxante dëgg bu mu ñu xeebal suñu cité bi suñu cité bi mooy suñu immeuble yi mooy suñu RD eh, suñu ñetteelu étage yi moom lañ yaakaar suñ ko yàqee nag fu mu toll nii nañ ñu jàppale ñun ñu wuti fu ñu dëkk nañ ñu jàppale ndax la imagine la li nekk fii ci ay nit fii ay doomi aadama bokkut ak ñi nga xam ne dañoo gedd dem boo ak ñi nga xam ne dañoo wuti fu ñu dëkk bokkut ak ñi nga xam ne dañoo gedd jën seen gàddu seen poset dem ñibbi dëkk ba ndax loolu rafet na te fu mu nekk nii si ñun bii lañ yaakaar yaakaar njaboot ak suñu waajur yaakaar ñu ci lii ñun xamuñu lu bon duñu def katu lu bon suñu yaakaar ne dañuy def lu bon ba tax ñi tas cité bii ñu ngi gën a yàq aggraver agression bu ñuy wax dañu agression moo tax ñuy def lii dañuy gën a yokk ndax xale yu góor yi ñu xamaa ne si biir cité bi lañ nekkoon di fi daan seen doole suñuy génn ci mbedd mi amuñu lu ñu liggéey dañ ku ñu dajal ci mbedd mi rey sa ndey agressé la kenn mënu ci dara fu muy mujj dëkk bi day gën a naqari dong di dem dëkk bi day gën a naqari di dem nañu jàppale ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ñett cité bi ku ñu mën a jàppale nañ ñu jàppale suñ bëggee jàmm ci réew mi nañ ko def man lii laa am lu may wax waa. ci sant man Gabriel Sombel Sarr laa tudd. d'accord situation bi tey. na trop boobu foo ko xalaat. foo ko xalaat ëpp na foofu. waaw parce que ñun euh, ay néew tuddoon lañ yaa ngi dégg. bul jël kanam bi. waaw jëlal baat bi rek waaw ñun ay néew ti doole lañ gis nga gouvernement dëkk kenn du ko yoree nii dëkk da yërëm da ngay yërëm sa askan mais doo leen di jaay doole di loo loo leen mu ne nga leen ko won yaa ngi dégg boo boo jiite ay nit da nga leen di yërëm waaye xam nga ne fii lii ñu def fii rafetul jekkul te gis nga président Macky Sall laay interpellé tout droit gis nga Macky Sall chaque jour ñu ngi nit ñi ñu ngi naan Macky Sall rankiñe la rankiñe la rankiñe la te Macky Sall yërmaange moo taxoon ñu fal ko di ko Abdoulaye Wade bëggoon a def moo tax ñu fal ko xeex ci xeex ñun fii fii lañ jógee dem dëkk ba nangu suñu carte d'identité yaay ak suñu carte d'identité papa yi pour ñu pour ñu wooteel tey mu ñooy fayee lii Macky Sall war ñoo fayee lii ah te daf ñu waroon yar wañ ñu wañ ñu ne dafa bëgg askan bi ñu jox ko bopp jox ko askan bi tey ñëpp la toroxal ñëpp la toroxal amul yërmande amul sentiment te na ci deltu ginnaaw parce que lii mu def nii rafetul jekkul te lépp ci moom la jógee ah ana ana maire bi maire bi fii ñun ñoo ko fal lan mooy njëriñam fii ba moom Babacar. ñëw na fi. ñëw na ba fii. Mhm. ba mu lan la fi wax. bon man dégguma bi muy wax mais nee nañ man nee na gars yi ñu arrêté lan moo tax amul amul doole boo xam ne war na mun a arrêté nit ñi gis nga boo jiite ay nit da nga leen di da leen di yërëm mais ni ñu yoree dëkk bi kenn du ko yoree dëkk te gis nga bu bu dof dooloo dinañ jëflante ak ñoom xam nga lii lii day yokk day yokk banditisme parce que ñu bari fii amuñu fu ñu dem fu mu toll nii ah léegi bu guddee naka lañ war a def wala problème amoon tey ci dëkk bi ñoom ñëpp ay génn parce que dañuy mer ah nit da ngay yërëm sa askan Macky Sall amul yërmaange te doomu Fatick la ñun ay doomu Fatick la ñoo ñoo ëpp fii ah parce que dimbaliwuñu moo tax moo tax ñu ñu ñëw dëkk fii nañu jàppale ngir yàlla ah ñii nañoo wax ñu arrêté lu ñuy def yaa ngi dégg bàyyi nit ñu dëkk fii la leen fekk lu tax mu leen di fi jële ah na bàyyi nit ñu dëkk fii vraiment man am naa ci lu la lu gàcc dëgg dëgg dëgg laa ci am ku ma waxoon ne Macky Sall mun na yore nii dëkk bi man damay xeex ak yow avant ah mais lii xam nga ni rafetul jekkul nit ku baax du doxalee nii mais ko wax mu ne Macky Sall rankiñe la Macky Sall rank ñun ñi xamoon Macky Sall ci lu baax sax rankiñe lañ ko def léegi parce que mu ngi toroxal population bi kenn amatul jàmm ci dëkk bi ah te moom mérituwul loolu ku nit ku baax lañ ko tegoon mu woon ñu yar bu mat sëkk ah ñu wóolu ko trop ah xeex xeex xeex ba mu ba mu jël dëkk bi ñaata nit ñoo fi de avant avant Macky Sall di falu ah waruñu war delloo ci ci lii waruñu waruñu fay lii ah ñu war a bëgg respecté ñu lu mu bëgg ci ñun ñu am ko mais lépp dundu seer na location seer na lépp seer na ah BRT kan moo koy lekk tali kan moo koy lekk ñun soxlawuñu ay tali na wàññi dund bi ay borom njaboot lañ dañu yor kër Dakar yor kër ci àll bi ah na wàññi dund bi wàññi lépp ñu mun a nekk ak moom. ñun soxlawuñu leneen Sénégal yi amul problème boo wàññee dund wàññi location wàññi yenn yu sew sewaan yi mu mun a dëkk ak yow hmm? man daal loolu laa ci amoon lu ma wax te Macky sal na ko dégg waaw affaire rancunier yi muy def na ko arrêté sinon dinañ dem ak moom fu ko neexul waaw loolu dal laa amoon lu may wax waaw.